مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على téway bi rek la seen doom moom mooy ñëw ñu gane ganesi ko téway bi lan la dañuy delloo njukkal sargar jëmu ji tedd bi nga xam ne moo di Cheikh Mouhidine ah gannaaw loolu nag ñu dugg rek ci thème bi Je nga da à dire euh, qu'est-ce que la citoyenneté active mais beaucoup euh, de manam buñ comme ci wolof nga ñu wax <laughs> ñu ñu def conférence bi te ba tey sax muy xéewal parce que loolu bokk na ci xeexe kii nga xam ne mooy sang bi te di Cheikh Mouhidine ah na ci li may dénk ne wax dëgg yàlla li gën a gàllankoor suñu système éducatif euh, moo di kàllaama bi nga xam ne moom la ñuy jëfee dafa nekk kàllaama bu ñu jéegaani euh, ci xam-xamam bu euh, sell bi mu xamal ñu ni ci wàllu psychologie moom ci ay gëstoom te ñëpp nangu ci Euh, ki nga xam li nga xam ne moom la ñuy tuddee langue maternelle mooy la nga nàmp wax dëgg yàlla bu fekkee loolu da nga koo njëkk a mokkal ba pare leneen lu ñëw ci tagu dafay gën a yomb te ñun suñu situation mooy dañu nekk ay hybride culturel maanaam da nga naan wolof nga waaye bu ñu la ne nu ñuy waxee philosophie ci wolof mënoo ko wax da nga naan séeréer nga waaye mënoo traduire benn concept ci biir séeréer kon nag loolu gàllankoor euh, kon nag moo tax. dañuy sax teggi wax jooju ndaxte day xaw a doy waar ñu taxaw fii naan dégguñu wolof lool lool lool lool euh, parce que loolu marque de complexe la te sëñ bi xeexam yi ci gën a tar mooy mu décomplexer totalement les intellectuels sénégalais bu ngeen yeboo ngeen xam loolu l'un des premiers combats de Cheikh Mouhidine mooy mu fexe ba ngeen décomplexé wu sur le plan mental décomplexé wu sur le plan culturel décomplexé sur le plan intellectuel man bu may nettali ay jaar jaaram ak ay ñoom Cheikh Anta Diop loolu rek lal naa ci jàngate dañu am héritage spirituel manam dafa am lo xamné ne du wax né am na ci réew yépp waaye dama ne chance Sénégal la mu nekk un pôle de convergence li nga xam ne meññ nañ ko ci xam-xam ci Afrique bi yépp ku ci nekk teg nga tànk fii muy d'un point de vue physique muy sa héritage intellectuel yegg na fi donc mu nekkoon loo xam ne dafa waroon nekk wéeruwaay dafa waroon nekk loo xam ne dañ cee war a taxaw pour mun a tabax suñu réew mais malheureusement encore une fois dañ ko jël jéegaani ko boo demee ci wàllu développement économique Cheikh Fanta Madi Aidara ca gëstu ya ma ci def déjà concept bi ñuy wax fii ay xawma ay ay retourner à la terre ay nangam déjà moom dans les années quarante lu mu waxoon déjà réew li koy développé moom Cheikh Fanta Madi Aidara mi ngeen di wax te muy wajur ku tedd kii nee na réew boo ko buggee tabax première condition ba ngay réaliser bu maanaam boo buggee mu soxaliku li ñuy wax ci développement xam nga lu mu wax mu ne fexeel bo la nga xam ne bool ba bu ñu ko taajee la cay nekk lépp doon loo xam ne ci réew mii la ñuy noyee fa lay jënde Cheikh Anta Fata Maïda Ara moo wax loolu mangi ngi fàttaliku ben terme bu professeur Ibader Der Thiam employé woon colloque en 95 mu le problème principal du sénégalais c'est son extrême porosité idéologique euh, Qui est ko waxoon Iba Der Thiam boo le problème du sénégalais c'est son extrême porosité idéologique bokoy firi dal sénégalais mom dafa melni ab éponge lu n'a bu tooy lu naw rek mu jàll manque da def ci biram manam mom amul ben identité amul ben spécificité dafa nek entre ciel et terre koku nak crise du civisme rek dama jot.